salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu bu baax a baax di am contentement ak mbégte jënd ak yéen chaque jour xam naa ne namoon ngeen ma lool waaye maa leen raw noonu laay def émission bi ànd ci ak suñu sponsor numéro un Mansour Fall di huile Jador ba mu ñu indilee diwlin Jador diwlin bu sell boobu teg ci macaroni Jador spaghetti Jador vermicelle Jador Aziz Ndiaye dafa ne déedéet damay doggaliwaat daañu tegal li nga xam ne mooy ataaya Jador kon nañu koy bëggee bu baax moom Aziz Ala Ndiaye waaye noonu laay def ne ci saraax ci làmb ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk nag la may xamle Balla Gaye numéro 2 la Lion de Guédiawaye is back ginnaaw ba mu wootee fii ca Amadou Barry open press foofu fees dell Balla Gaye nag la muy xamle nee na combat boobu Bombardier di la b def dara du puus du mooy bëre te mooy daan waaye nag ki nga xam te ne nii mooy Bombardier daal di cay koy tontu nag mooy daan ci nga xam ne mooy istuwaaru làmb loolu lay xamante ne combat boobu nar naa metti le 1er janvier lay amal fee ci arène nationale Gaston production le Don King de la sénégalaise moo ko taxawal ba léegi nag ki nga xam ne ni mooy Bombardier tontu na ko loolu leer na waaye Modou Lo Modou xarañ Lo moom mi nga xam ne mooy Rock des Parcelles Assainies combat ba mu am diggante ak sël bu ndaw ba di Ama Baldé le 13 mars lay amee face to face ba nag mujjul at waaye la journal bi di xam ne nag mooy ki nga xam ne nii mooy Modou bii mooy premier challenge am Mansour Fall ba léegi dañuy dem ci ki nga xam ne nii mooy jamaïcain ah jam borom Gambia borom Sénégambia combat bu mag la daal taxawal combat ba nag booy Boy Mandione xoyantaan ñoo ko doon bëri mu réussir ci jàmm ñu koy ñaan ak ki nga xam ne ni mooy Baye Mandione ndam li sedd ci kawam waaye Jamaïcain nee na yemul foofu Mansour Fall damay dem Iba Mar su ma demee Iba Mar combat beneen laa fay tëgg beneen combat bu mag ndax maay kingu Iba Mar tëgg nag mooy Pape Ndoye laq ki nga xam ne mooy Raglos ak ki nga xamante ne nii mooy taqe taqe nag lamsaar la jógee mu mel ni combat boobu revanché woon ndax ki nga xam ne mooy Pape Ndoye moo daanoon ki nga xamante ne nii mooy Abou Ndiassé yàggul dara ba léegi dañuy dugg ci tuus rek Ama Baldé nag ak Modou Lo tension ba daal dina yéeg waaye yi daal di ñëng moom promoteur bi lañ koy laaj ndax yi daal di ñëng saison bi dina tëgg ndax gisaguñ ko te noonu nag Balla Gaye numéro de defi ba mu war a relever nag mooy mu daan ki nga mooy Bombardier ndax xam nga lañ jëm di la petit frère di Sa Thiès di Salif Sakho lañ koy waxal nag combat ndax ren jii di saison bi Sa Thiès dina ci am combat. ba léegi nag combat yi ñu taxawal di combat yi mag yu neex waaye combat espoir booy remarque Angleterre fi selu nañ ko beneen combat ba taxaw war a am le 16 janvier kan la armée ak ambulance ambulance nag moo ngi jógee ba Thiès. ñu dem ca galaa ba amoon ca Bamako ki nga xam te ni mooy Yaxya Joob Yékini l'ancien roi des arènes daal di koy tëgg ña gañe nag ma xamoon damay yóbbu Mansour Fall ak Momo Mané ñëwee dinañ indaale dëkk bu neex amoon combat le 25 ak le 26 décembre yaakaar naa ba gars yi di Noël fii ci Dakaaru Njaay ñoom nga moo fa jël raw gàddu ga ka jël raw gàddu ga nag feneen nga xam te mooy mbinaan samedi passé mu ngi xam ordinateur ordinateur nag fan yi mu ngi def ay jaloore ci li nga xam ne mooy lu simplement suur beneen combat bi ñu fësale ginnaaw ba mu alancee ci kanam ki xam ne mooy Eumeu Sène junior koo koy Kalmu Ndour grand manique di doomu ndey Boy Niang numéro 2 am na combat kan la am ki nga xam ne mooy Mbaye Guèye junior Mbaye combat boobu nag ren sa DKR moo ko tëgg maanaam Alain ak Jumbo ma ne di béggee bu baax a baax ñu ngi def ci làmb lu ama am solo dañuy dem Mansour journal ki nga xam ne mooy journal record record nag la muy xamle moom it daañu ñëwaat ci ki nga xam ne mooy Balla Gaye numéro la Lion de Guédiawaye la muy xamle je vais corriger ay mbaa dina yomb Balla Gaye ko wax neen dina ko duma daan ko jël raw gàddu gi yóbbu fi nga xam te ne nii mooy Guédiawaye waaye la ñuy tëjee ma Baye Mandione Baye Mandione nag bi mu daanee xoyantaan la muy ne nag ci journal bi nee na boobu waru woon lañ ci war woon daanu la mu waroon def mooy gañe xoxoyantaan waaye à sa manière ci jël bu rafet comme ni mu ko daanee dóor mu daanu dañ cee kontaan lool lool lool dina ki nga xam te ne nii mooy xoyantaan di ko encouragé bu baax a baax nan ko foog nga ñibbi après defaruwaat daal di ñëwaat xoyantaan muñal bàyyi ma ñor félicitation di la ñaanal ndam li bu baax a baax a baax ba léegi ah loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb dama di jaajëfal di jaajëfal sama équipe bi ah Fama Dramé kenn du yow sama caméra wu man bi waaye Mansour Fall sama monteur sama caméraman dama koy bégee a baax lay jaajëfal moom moom maa ne borom pour cent assurance bég naa ci Abdourahmane borom ndékki maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Aïcha jox leen di daje ëllëg incha allah ci xew-xewu làmb jaajëf